xanaa déjà ñu féliciter joueurs yi féliciter le public sénégalais surtout ils ont c'est la première fois que stade bi mos a feesee nii bon résultat bi neex na ñëpp mais nag euh, y a des problèmes et problèmes yooyu il faut ñu régler ko parce que recevoir équipe foog ni mu mel ni yow nañu recevoir ngay défendre on connaît pour comprendre quoi man daal pour man daal l'entraîneur doit être aidé à lui du ci génn du ci génn ni ma ko mën a tënkee daal mooy nga jël benn bus buy yeb 65 personnes jox ko koo xam ni oto kalandoo la mës a so dawal ne ko jaaral ci falaise Mali bi équipe bi noonu la mel ci Aliou Cissé rek il faut ñu wutal ko kenn ku mel ni Umar Daaf wala benn borom xam-xam mu jàppale ko ndax aussi euh, ci ñii la mës a yor comme équipe xel nag du doy mu am ku ko aidé yenn erreur euh, de changement yi muy def loolu rek moo ko waral à lui seul ni mu gàddu dafa diis. il faut que mu yéene ko ko sinon di dina jog foo xam ni kenn xalaatee wu ko fa te équipe bi ñëpp ko bëgg ñëpp ko yéene am na wërsëg nag am na chance maintenant li des mooy il faut qu'il accepte de se faire aider. man daal li mu jàngat bi ma ci am ma ni des na quoi comprendre la pour man daal selon selon man daal des na dugal nañ gagné nañu mais dafa am loo xamante ne ci man des na équipe nationale quoi comprendre la mooy euh, par exemple ñu def comme euh, Cameroun genre comme Côte d'Ivoire. comme ay Nigéria ñi nga xamante ne bu ñuy football ñoom seen bakkan la ñuy teg ci bal bi. comprendre nga comme euh, Aliou Cissé bi mu yóbboo joueurs yi bu euh, ba ñu nekkee euh, équipe nationale junior la xaw mu yóbbu leen ba final ah booy perte mais foofu. boo xoolee da ngay seetaan match boo xamante ne day leer ni ñii bàyyi nañ ci seen bakkan quoi xam la ñii rey nañ seen bopp joxe nañ dara comprendre la ñi ngi koy def démb def nañ ko ci match bi mais ba tey des euh, des na keroog def nañ ko ci match euh, bële passé ale bi mais ba tey si man des na parce que man euh, football boo koy def pour man ah lépp lu loo xamante ne mun nga ko joxe ah war nga ko mën a joxe parce que benn balaa cee dëkk bee jëriñoo yow mii nga xamante ne yaay footballeur bi yaa ci njëkk jëriñoo parce que tey jii nii qualification coupe du monde yow joueur bi da ngay exposé aussi bëtu recruteur ñëpp comprendre nga lu mu la boo demee ba final kooku moom amul benn joueur équipe nationale buy taxawal. ñoom ñëpp la ñuy recruter ci équipe yu baax yi comprendre nga donc balaa kenn ñoom ñoo ciy jëriñoo ba pare comprendre nga balaa euh, Sénégal di si jëriñu wala yooyu donc ñoom dem nañ ba quart de finale équipe nationale 2002 bi demoon nañ ba quart de finale comprendre la loolu ba tey baax na mais pour man année bi dañoo war a jël coupe bi. waaw ah, wax dëgg yàlla dem moom Sénégal gën naa góorgóorlu yokk na góorgóorlu par rapport ak match passé ndax loolu nag soo gisee dafa mel ni dafa am ñu xam ne dañoo nekk ci bees ci équipe bi ba pare xam naa tamit dañoo bëgg a wane tamit seen bopp moo tax match bi gën a demee noonu démb moom wax dëgg yàlla def nañ effort ndax ils ont montré wax dëgg yàlla ñu ngi seen dëkk ah seen waa dëkk teewtu loo xam ne tatal leen tatalal leen jox leen courage te tamit ñu def le maximum possible wax dëgg yàlla démb moom macha allah mun nañ wax ne ñu ngi commencé am yaakaar ndànk-ndànk mais tamit nekk gut carrément. parce que équipe bi ba léegi am na lu des waaw am na lu des bu baax a baax Aliou Cissé war na ko gën defaraat tamit joueurs yi tamit ñu gëm ne ñoom ay professionnels lañ war nañu mën a def le maximum am ah, xool jël dem fu sori par rapport ak 2002. mooy qualification bi rafetlu naa ko mooy équipe nationale dem na coupe du monde euh, pour la deuxième fois euh, ñëpp ñu ngi leen doon xaar pour ñu dem man bettuma ah, parce que suñu poule bi gën gisoon naa ne Sénégal mën na ci jël jël xëy na ñeneen lay bett waaye man musuma bett quoi xëy na Sénégal booy ay guerrier lañ am nañ équipe Sénégal boo ko xoolee rek xam ne am na équipe bu baax euh, boo xamante ne mën na dem jongante ji coupe du monde te gëm naa ne booy bu ñu gëmee seen bopp war nañu mën a sori premier tour loolu daal xam naa ne loolu laa laa jàngat ci affaire yi match démb bi bon seetaan naa ko mais bon du match qualification la quoi du match référence waaw moo tax mënuma ci sori lool lool lool lool lool lool waaye gëm naa ne bu ñu toppee ci ginnaaw gaynde yi bon ñu nekk seen ginnaaw encouragé leen bu baax euh, gëm naa ne dinañ am dara daal incha allah. non Aliou Cissé euh, am naa ci moom confiance parce que xam naa ni même bu amul expérience lii sénégalais yi di séntu ci ñoom moom muy jom. daf ko yàgg jëfee même ba mu nekkee équipe nationale doon football yàgg na ko jëfee donc mi ngi nekk entraîneur man xam naa ni bu dee booster joueurs yi rek juste booster boy yi dina ko def te mën na ko te il va le la te il l'a déjà fait sax mais li mu gën a soxla mooy joueurs yi ñoom seen wàllu bopp mooy li ma la wax rek muyee la maillot rey seen bopp même même bu ñu por même bu ñu perdre ñun Sénégal ñu kontaan même défaite bu ko amee au au moins ñun dinañ kontaan quoi xam ne ñii au moins rey nañ seen bopp ah pour am lii comprendre la mais nag am na beneen affaire seetlu tamit bu ma am ci équipe bi mooy euh, kaaw Sadio Mané Sadio Mané damay gis ni bon bu nekkee Liverpool day génn di laaj bali comprendre di insister comprendre la si jeu bi mais fii damay gis ni du ko def te gars yi dañu nekk di ko raay ak yooyu noonu mais nañ ko wax dëgg bi li nga xamante ne moom moom la war a def na ñëw fii joxe bakkanam parce que bu ko joxe dul tamit moom mooy perte yeneen joueurs yi dañuy avancé moom mu des si boo demee Liverpool def li ngay def ñëw fii doo timuy pas le meilleur loolu pour lan. s'il va seul s'il va comme ni mu ko gis nii bonjour au revoir la ñuy am bonjour au revoir s'il est accompagné. je vous jure que mën nañu gën a sore génération bële fi ñu àggoon quart finale mën nañu ko dépassé su fekkee am na ku ko dimbali. nga ne jeunes yi gën a ñëw am potentialité pour euh, nga sore nga xam ne moo di compétition boobee. joueurs yi am nañ ko ils ont l'envie ces gosses-là c'est des battants ay gagneurs nañu waaye nag ki leen di yóbbu kii teg schéma tactique yi kii teg classement mais kooku bu tegulee lu war a mën a gagner ñoom ñoom ils sont là pour gagner ah léegi nag am na système yoo xam boo ci nekkee dañ lay rey. ñun démb yàlla moo ñu suturaal mais Afrique du Sud bu dugaloon bu seen penalty boobu ñaata jàkkaarloo nañu raté match bi bu newoon 4-2 en faveur de l'Afrique du Sud kenn nu mer le score n'était pas la physionomie du match yooyu erreur laa la wax boo ko yóbbee fële ces erreurs là vont payer cash bonjour au revoir na ñuy def. nga yaakaar ne amuloon excès de confiance ci li nga xam ne moo di match démb bi. problème du du affaire excès de confiance parce que moom ci boppam ba mu ñëpp xam nañ ne il était pas là pour attaquer suñu premier match bi ñu demee Afrique du Sud moom laa gisaat il est venu la peur au ventre c'est pas normal il doit faire confiance à ces gosses là mais nag li ma wax rek mooy il est seul il faut qu'il se fasse aider par quelqu'un dans ses choix tactico-techniques yëpp sinon moom y aura un problème. Aliou Cissé moom lu ñuy xaar ci moom maanaam mu def lu xam ne moo ëppoon li ñu defoon 2002 donte ne sax moom jéewoon na 2002 mais gannaaw ren moom mooy coach bi bëgg nañ mu def lu xam ne ëllëg deux mille deux mille dix incha allah ñi ñi gën a dem ci avance si kanam joueurs yi tamit ñu leen di waxal toog nañ 15 ans demuñ coupe du monde kon nag ñoom yoon la tamit ñu jéem a prouver def def le maximum pour ëllëg incha allah ñoom it ñu séntu leen si yeneen club yi ngand yi donte dina métti nag dina métti ñu jël coupe bi waxtaan wax dëgg dëgg ca la waaw mënoon nekk équipe bu nga ñëw nga da nga jël coupe mun nañ def le maximum possible jéem a dem ci kanam gars yi séntu ñu kat ñu bo boole ñu si les les meilleures équipes monde may xaar ci moom mooy mu gën a xoolaat euh, jeu am parce que sur le côté jeu rek lañ koy reproché mooy Sénégal amul jeu waaw jeu moo des ak euh, kii bu dee rigueur am na ko parce que booy ku leen gis xam nañu am nañu rigueur bëgg nañu gañe mais sur le plan jeu rek lay lay lay xoolaat euh, kii am su ko xoolaatee rek gëm naa ne dinañ am dara ci Aliou waaw parce que bëgg na ko ku ko gis xam ne bëgg na équipe gëm na lu muy def bëgg na lu muy def waaye des na tuuti rek nañ ko yokk yokk dara rek bu ñu ko yokkee dara rek gëm naa ne dinañ am dara incha allah. joueurs yi aussi looy xaar ci ñoom. waaw ah, joueurs yi mooy li may wax ci ñoom rek bu ñu naagu xam na ne ku naagu da ngay daagu kon nag nañu gën a góorgóorlu xam ne lii du dara jommu leen mérité nañu dem coupe du monde Sénégal amul lu mu mérité def xëy na chance daal mooy dul ànd ak ñoom li ñu des liggéey la il faut beaucoup travailler boo gisee yeneen équipe yi du tax ñuy euh, di gagné ñuy jël coupe d'Afrique wala ñuy sori ci coupe du monde parce que dañuy liggéey waaw. liggéey moom am solo na booy gëm seen bopp te xam ne dara yombul. moi je me rappelle quand Messi a fermé la porte am na euh, bi mu ne i met fin à sa carrière international c'est les dirigeants qui sont partis le ramener Pape Kouli Diop nee na bàyyi na na ko dirigeants yi dem jëli ko demain il peut nous apporter beaucoup dans cette équipe parce que fu ñu jëm xam-xam ñuy laaj. alors qu'en dites-vous du cas de Sadio maane Sadio Mané on attend que mu boot équipe bi. ni mu nekkee yaakaaru Liverpool nañu bëgg mu nekk yaakaaru Sénégal des na nag parce que il ne pas dans un contexte où il peut s'exprimer comme il faut amul dix boo xam ni mën na wekki wekki joxaat ko quelqu'un qui peut le faire le faire jouer comme à Liverpool mais nañ jëli Pape Kouli Diop essayer d'ici le mondial on a le temps bu buñ ko jëlulee nag lii rek la fiy def de du mën a liggéey li muy liggéey Liverpool ndax éléments yi nekk Liverpool di ko jàppale mu mën a exprimer wu amuñu ko fii ci équipe bi loolu rek